defe naa ni réalisé na ko kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla politique am bii mu sumb nii yàlla na ci am lu kawe njottam maa ngi tàllal sama loxo population Grand Yoff yëpp ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo ci panaa bii ñu ñu tabaxal château bii ñu ñu tabaxal kenn ku ci ne dama bëgg mu def ko yëfu boppam lépp loo xam ne dafa war a mën a defaraat plateau technique bi ak lépp loo xam ne war na mën a defaraat développé Grand Yoff maa ngi tàllal sama loxo maa ngi tàllal sama loxo waa Grand Yoff yëpp bàyyi ma kenn mag ak ndaw ñëpp notable yi nekk ci quartier bi délégué de quartier yi imam yi curé yi maa ngi tàllal sama loxo ñëpp nañu àndandoo jàppale ma ci liggéey bi su ko defee

Grand Yoff Saint-Paul imam di beral nuyo sama mag sama xarit le maire Khalifa ababakar Sall di aussi c'est le premier adjoint au maire des HLM donc sama qualité de président commission santé bu commune du Grand Yoff man timit De ngi leen di dalal di dalal ni fi ñew te muy notable yi muy population Grand Yoff ak sama collègue conseillers municipaux yi liggéey bi ñu fi indi tey liggéey bu am maanaa Basirou Bassirou wax maire bi muy campagne 2014 diggé woon na yu bëri mais man bi ma ci retenir parce que bon moment intéressé parce que man ci santé la yëngu docteur la médecin la il lan la programme santé c'est vrai amoon na ambition yu rëy yu nga xam ne si waxoon na ko notamment maternité bi bokkoon na ci waxoon na dina fexe ba nga xam si Grand Yoff nit waratu fi jóge di dem di accoucher ji feneen ci yoon woowu la nek poste de santé bi ni mu meloon indi won na ciow yu bari vraiment nekkoon na poste bo xam si daanaka doxatul won ni ñu ko rénover nak ñu ci sante yalla rénovation bi nek na ci yoon actuellement valeur maternité depuis la yoré ndax salle d'accouchement, accouchement ngi fi euh, euh, euh, salle d'hospitalisation yaa ngi fi salle d'observation yaa ngi fi matériel bi li ñëw bari na li ci tegu dina am donc fii li ñuy wax mooy maternité bu nekk dans les normes Grand Yoff mën na wax ni am na ko surface bi nga xam ne si ci la ñu construire parce que bi xam nga dafa rëy donc salle yi yaatu nañu ñun visité nañ ko comparé nañ ko ak yeneen maternité xam nañ ni Grand Yoff aujourd'hui maternité bi bijou la donc ñuy ñaan mu ràpp ak jàmm ni ñu koy waxee nit ñi di fi ñëw di am soins yi gën ñu leen ko fi defal donc population bi xam leen ni lii yéen a ko moom da ngeen di ñëw fii di ànd ak mairie bi ànd ak chef de poste bi ñu liggéeyal ci maternité liggéey bu di bijou la nag madame euh, l'ICP yow yaa ko yore yow yaay fexe ba nga xamee ni sii ni construction yi ñu la jox nga def fi loi boo xam si nit ñi danañ ko téye matériel bi danañ ko téye dégradation bi bañ a gaaw su ko defee Grand Yoff mën a xalaat leneen ba nga xamee ni si population bi li mu laaj moy euh, mu am benen centre de santé bu bu bu bu bu nak euh sami euh, sami municipal fi ci bir euh, Grand traditionnel dafa wara am population bi lañ nako ko war na am centre de santé wara am benn médecin chef bo xam yeen si da ngeen nëpp ci gannaawam liggéeyu santé bi mën développer ci Grand Yoff en tout cas man maa ngi saluer liggéey bi ñu def ak réception bi aujourd'hui xam nañ ne am nañ maternité fonctionnelle li ci des bareetul li ci complément wu fin août bi rek mais maternité bi fonctionnelle la loolu loolu laa mën ma ci wax xam ne di sant yàlla bu baax si bés bi nga xamante ne ñëpp dañëwaat nañ fi di commencé nuyoo bi ci Abdou Alphonse nga xam ne dafa nekk suñu mag ba pare toogal ci jàngu bi fii ci Grand Yoff nekk curé paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff Abass Sons ñu ngi lay nuyu commune bi yëpp di yóbbante nuyoo si mboolem chrétien bu nekk biir Grand Yoff yeggal ko suñu nuyoo ñu nuyu leen sant leen bu baax si képp koo xam ne yaa ngi toog fii si diine islam ñu nuyu leen nuyu ñi teew ñëpp ñu nuyu monsieur le maire Seydi

ñooy nañ ko mën a ubbi pour nit ñi mën a commencé faj ni monsieur le maire Mamadou Mbaye ñu ngi nuyu grand baax di la sant di la gërëm di ñaan yàlla yàlla yàlla gën la may wér yokk sa fan nuyu Pape Mamour Gueye bi nga xamante ne moom la woon après yow nga ñëw après man ma ñëw ma sant leen baax gërëm leen di nuyu baax suñu kilifa yi nga xamante ne moom moo fi teew tey di Khalifa Ababacar Sall nekk koo xamante ne nii su ma toogee fii tey nekk maire lépp moom moo ko moom lañ koy delloo ndax si coobareem la yàlla jaar def ma maire Grand donc kilifa gi ñu ngi lay nuyu pap bu baax ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla nga mucc si fexeem noonu yëpp ba yegg fi nga bëgg a yegg ñu nuyu aussi ki nga xamante ne mooy les vieux chefs de nga xamante ne tey moom moo daloo

fekkoon ne lu ma indi ngeen sànni ko si àll bi lii du am projet bi ñu ko gëmoon bëriwuñu mais conseil bi gëmoon nañ ko ba tey ñu yegg si donc jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen nuyu administration bi nga xam ne aussi ñoo si jàmm yi a si Ibrahima Dieng mooy seen secrétaire municipal sans administration commune mënul fonctionner mais gis nañ tey ñëpp a taxaw pour affaire bi réussir mooy mujjee ne ñi nga xamante ne ni dañ leen a fonk ñu nekk suñuy waajur muy délégué quartier yi jur ñu am suñu cër waxoon naa sànq Pa Moussa Diop ñu ni ko si kanamu toog parce que Pa Moussa mooy délégué mooy président délégué quartier yi te suñu kilifa yi bu ñu toogee fii ñun ay doom rek la ñuy doon Pa ñu ngi lay nuyu bu baax si tur délégué quartier yëpp nga jox leen nuyoo bi nuyu Pa Bili Faye nga xam ne suñu jur la suñu xarit la yaramam may ko ko mais léppam lay bàyyi uniquement pour Grand Yoff donc Pape Bili yalla yalla gën la may wër kontaan nañu trop trop nuyu moyam ni fi teew nuyu bàjjenu gox yi Diabou Touré seen président nuyu Nafi Touré mu yoré rafkaj yi yore GIE famu Grand Yoff yi nuyu képp ko xamné rek ñëw nga pour cérémonie bi am nañu mbégte kontaan nañu trop li sa am solo nag mooy lii daa nekk ci yoon bi ñuy continuer rek da fu ñu doré won ñew fekk fi lo xamné Khalifa Sall moko fi bayiwon moko fi def nous ñu ñëw pour motali pour continuer ñu fi dara loo xam ne fi woon fii moo fi nekkoon yàgg dox fekk man yàgg na fekk nekk ma fi soo doom nag bu mu màggee daa ay Vous suñ ko defaree ba mu commencé yàqu suñu cër moo ñu donc kilifa gi dañu ñëw rek pour defaraat li fi bàyyi woon yeesal ko ba mu mën a ak jamono ndax suñu ambition mooy Grand si côté santé waratul a dépendre si

beneen bi mooy ñëpp xam ne jigéen wérul day soxla échographie moo tax am na salle boo xam ne matériel baa ngi fa échographie baa ngi fa bu ñu paree rek dañ ko utiliser. li si am solo mooy tey bu ñu paree cérémonie bi tey suba ku ñëw fii di nga loolu mooy importance équipement yëpp ñu ngi fi loolu bi kese moo des muy salle yoo xam ne si lañuy si lañuy defee test yi.

fexewoon nañ ba def si sami bi bloc boo xam ne tey waaw grave ñoo ko moom bloc boo xam ne tey mi ngi fonctionné képp koo xam ne daña war a def césarienne tey mun nga dem si bloc boobu ñu dafa def césarienne maintenant li ñu manqué mooy ay médecins yoo xam ne dañu war a ñëw jël bi mun ko gérer actuellement nii mi ngi fonctionné mais ay clinique ñoo koy loué di si opérer seen maladie et pourtant dañu moom pour waa Grand Yoff mais xam nañ ne coût bi dafa cher pour jël ay médecins moo tax mais ñu ngi si yoon yi pour am médecin mais en tout cas ñu xam ne Grand Yoff am na lépp léegi li des mooy ñu fexe d'ici peu de temps accompagner sami mu am scanner boo xam ne bu ñu soxlaa dara fa la ñuy jubal directement rajo bi mi ngi fonctionner mais dañu gën a yeesalaat ñu mooy yi nga xamante ne dañu am ambition pour def ko Grand Yoff mënul dem sans santé mënul dem sans éducation mënul dem sans culture moo tax bu ñu paree fii dans un mois foyer bi à côté dañ ko daaneel defar ko mucc ayib pour ñu acteurs yi am suñuy jàpp njit nag bu ñu la pour nga liggéey wax ju bari waru la li la war mooy nga liggéey ànd ak nit ñi xam ne loo fi def nit ñi tax nga def ko man fekkoon du Khalifa Sall miy toog yàlla jaara ko ci moom doo mës a nekk maire Mamadou mbay mii nga xam ne moom laa remplacé su ma demee ba feeñ moom moo may lu ma feeñal parce que moom ma joxoon lépp ma yore ko musuma fa Ah, monsieur le maire merci di nga am adjoint au maire doo ko jox benn responsabilité mais da ma encadré accompagné ma jox ma lépp ba tey grand xam ma ba xalifa xam ne am na lu ma mën mu wóolu mu dégg donc merci beaucoup loolu am lu may wax si ay kàddu ñu sant ñëpp ñu gërëm ñëpp maintenant xaar yàlla su ngeen demee foofu tey am na lu bees loo xam ñu ngi koy taw matuñu de lu bees tàq mais boobu ville de Dakar ak commune Grand Yoff ñoo boole du ko def ñëpp xam ne ne ba ko trois ñëwee dañu waxoon ne dañuy boole suñu doole yi mutualisation ñun ak ville de Dakar loolu moo tax tey boo demee xaar yàlla ñu fay tabax mu matériel bu bees mu fay tabax ñu ñoo defar plan bi boobu le maire Khalifa moo fa nekk ñoom financé équipement yi le maire Souamadou ñëw yeggali ko construction bi ñu ñooy def équipement yi après donc loolu mooy mutualisation da ngay am indi ma am indi ñu boole liggéey

état civil nous ñepp xam nañ né salle d'archive bi ni ko wara chantier bi ko deux fois ñu arrêté parce que nous avons am benn pour def un blanc une boulangerie une boulangerie Nous yow nga wara soxla état civil donc li bëgg ñu benn say parti fait ethnie religion àndandoo uniquement pour Grand Yoff pour Grand Yoff jëm si kanam Grand Yoff ñoo ko mën liggéey kenn mënu ko dul ñun vraiment suñu ambition yi xam nañ ne Grand Yoff metti na soxla état civil bii boo fa demee tey si ngoon am nañu fa nekk pour def informatisation ñu ngi koy enregistré comment enregistré registre yi projet bi ñu am si budget bees bi mooy créé ñaari état civil secondaire benn bi nekk HLM Grand Yoff benn nekk seen coopérative pour ñu mën a jàppale état civil principal pour grand bu ëllëgee ku soxla këyit fo dem fekk lepp nek informatisation do sonn da ngay taxaw ñu génnee sa këyit nga nga def ko bu gaaw deuxième moy fraude amati parce que chaque extrait da am code ku ko dem ñu xam ya defar extrait bi daa am code bo xam ne agent bi koy mom donc yooyu dinañu permettre ñu gën a sécuriser suñu état civil sécuriser élèves yi sécuriser xale yi ba kenn du la jaay papier bu baax loolaa moom lu may sant ay kàddu ñu sant leen ñu gërëm leen balaa ñuy lever séance bi monsieur le maire Khalifa day jël parole parce que moi suis invité d'honneur te man doomam maa koy ñaan ce n'est pas le maire qui qui qui fait une demande c'est votre fils mo lay ñaan pour nga jël cadeau. nga sant wa Grand Yoff fii nga gërëm leen ndax duma mëne li ñoma ñoo té ya nga fi teg kon te yaa ma fi teg nak bo xasse teew sant ak ngërëm yow la war man waruma ñu lay sant la gërëm di la ñaan yàlla yàlla motal lépp ni fonction bu tax maire Grand Yoff toog di wax ci cérémonie maire Grand Yoff may wax su ma fi waxee damay jéggi gaam damay teggi yoon te man gudduma lool ma jóob mooy maire Grand Yoff mooy kilifa Grand Yoff mooy suñu kilifa ñi nga xam ne ñoo séq ak moom Grand Yoff muy curé bi muy imam yi muy délégué de quartier mais surtout pour conseil municipal bi ñu ngi toog en plus de ça Mor mbay Mamadou mbay teew donc man seede démb Ibrahima Seydi teew man seedeel waa Dakar ma war fi wax amul place amul yoon moo tax mu ni ma naa ñaan comme que mënuma ñaan nag dama koy ndokel rek parce que décentralisation dafa am solo li tax première année indépendance Sénégal autorité yi fi jiitu def décentralisation option dafa wund ni réew mi ñi ko war yor doxal ko ko moy askan wi parce que kuy liggéey askan ngay liggéeyal kuy wax ci ngam ngay wax mais jamono dafa toll foo xam askan wi loko jox mu def ko loko jox rek mu def ko Ce Grand yof def tay entreprise bek moyen yek lepp Grand yof bokk Grand yof lolou lañu soxla motax ma di ci

maa de di de Santé, merci beaucoup. bon pour le pour le coup je préfère qu'on laisse sans l'immigration comme définitive sommes aujourd'hui à une location provisoire. maintenant ce qui est important pour moi aujourd'hui on a augmenté on a on augmenté le médical de cette maternité. c'est une maternité qui n'avait pas de flèche, qui n'avait pas de labo, qui n'avait pas de salle pour euh, pour échographie. Maintenant, actuellement, on a tout ça ici dans la mosquée. Maintenant, le, durée des travaux, la durée des travaux, c'est un, an, six mois maximum. Mais ce qui est important pour nous, aujourd'hui, on est là pour faire des sessions provisoires pour que dès demain, les gens peuvent venir ici pour, se faire consulter, pour se faire soigner. Attends, l'inauguration carrément Maximum d'ici deux à trois mois, parce que ça, reste le logement de l'ICP et la mort. Comme vous le savez, actuellement, on a trois salles de stabilisation avec six lits de chaque salle. Ensuite, un laboratoire, une crèche et une morgue. Donc, par rapport au laboratoire, le laboratoire, c'est un laboratoire qui, aura la capacité de faire pas mal de tests qui concernent les femmes enceintes. Donc, c'est un labo vraiment moderne. Ensuite, on a une morgue à l'écart, on a aussi une crèche et deux salles d'accouchement. Pour moi, c'est très important et intéressant. On est très heureux et très comblés d'être là parce que pour nous, notre, rôle, est de respecter les promesses tenues au, au des, du campagne électoral. Vous avez rappelé tout à l'heure l'importance de la mairie de Dakar, la ville de Dakar. le président de la République voudrait supprimer cette ville de Dakar. Quel est le sentiment que vous avez Le président a cette intention uniquement pour liquider Dakar. C'est ça son vœu. Mais pour nous, Dakarois, nous savons tous que la ville a des compétences que les communes n'ont pas. La ville, elle, en tant que ville, a des prérogatives que les communes n'ont pas. Maintenant, pour nous, l'idée de supprimer la ville n'est pas à l'heure du jour. Pour nous, on doit tout faire pour renforcer les moyens de la ville, renforcer ses capacités pour que cette ville-là puisse accompagner les communes. Voilà. ci wolof euh, tey ngeen euh, ce que ngeen koo tabax ak euh, waaw jàpp naa ne tabax bi ay un mois un an si ma lay tolloo maintenant coût bi nañ ko pousse ba si réception ba si inauguration tey dañuy defoon réception provisoire dañ ko jëlandi pour nit ñi mën a liggéey parce que dañ ko soxla woon maintenant li si am solo suñu tey même du sax jël bi mais li fi nekk léegi. ñépp xam nañ ne bu njëkk ba amul woon morgue amul woon crèche amul woon laboratoire amul woon salle pour échographe tey am na une morgue am na un labo am na des salles d'hospitalisation am na deux salles d'accouchement loolu am na njariñ am na tey fu ñu defee échographe loolu mu ëpp solo li des nag mooy ñu xool maintenant comment s'organiser pour lépp loo xam ne ko war a yokkaat ñu yokkaat ko ci waa Grand Yoff seen bopp suñu idée ñun mooy Grand Yoff autonome nga xam ne suñu compétence dafa la grave bañ ko jéggaan ci compétence bobu mu yëm nga xamné mairie Dakar président Macky Sall bëgg ko supprimer ban sentiment nga am par rapport ak loolu pour man lolu dako def rek pour politique politique war def ko mais xam nañ la ville de Dakar amna ay amna lu mën lu commune mënul ay tali dafa 10 ville Dakar moko defal moko defal commune yi ay stade dafa 10 moko defal commune yi maintenant pour man fekk dañu bëgg def centralisation bu deugër bu wóor bu ñëpp and nañu bay affaire politique yi defar liggéeyal Sénégal liggéeyal suñu réew bañ a parparloo mais président su waxee né avec suñu ville de Dakar foo dem dans le monde am na ay ville am na ay maire waxuma benn dëkk amul maire ville amul mais xanaa kon day jël Sénégal di la ko ginnaaw 60 ans en arrière et je pense que da koy wax nii rek mais yaakaar naa du ko def parce que bu ko defee dina wàccee boobu d'une façon boo xam ne kenn du mun comprendre le président sant rabbil alamin man may maam Soxna Gaye laa tuddoon nekk conseil municipal maire Grand Yoff nekk aussi conseil municipal ville de Dakar Grand Yoff maa ngi si charge yore charge à marché commission à marché maay présidente bi ñu sant yàlla di remercier suñu maire vraiment taxawaayam rafet na mais aussi l' ensemble conseil municipal tamit seen taxawaay rafet na ci boppam ñuy sant Grand Yoff yëpp di wax ne lii c' est la première fois ku iñaan ñu soxal na si yàlla vraiment am na xalaat bu rafet am na initiative rafet ñu ko siy sant en même ak conseil bi yëpp di leen sant di leen gërëm si li ñu def kontaan nañ si baax a baax. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax parce que lii kenn xaaru ko woon ci moom quoi mais comme jaayante na ba mu ba li am ñëpp a koy sant yàlla bu baax a baax quoi parce que lii dafa manqué woon Grand Yoff nabi sukkër la ñu am li tam bu ci yoola bu ci yokkuwaatee dañuy gën a sant yàlla waaw ñu ngi kontaan ñu ngi kontaan trop ñu ngi kontaan trop ci monsieur le maire. jërëjëf jërëjëf monsieur le maire jërëjëf gis nañ gis nañ lu mu defal Grand Yoff quoi lii gis rafet na trop li rafet na trop jërëjëf waay jërëjëf monsieur le maire